بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين جناب سنتي سنبرام سبحانه وتعالى جل بيرنتم صلى الله عليه وآله وسلم لي أفتل لبجمتي جنگ القرآن ak barab ba ñuy jàngee alquran sunu borom day def noo wax ci ñaari laaya ci alquran benn bi dani fàttalil su fekkee fàttali yaakaar ngay dana jariñ benn bi mu ni fàttalil ndax fàttali sax day jariñ ku gëm yàlla laaya ju njëkk ji kon dafa mel ni dañuy làmba làmbatu ndax est ce que fàttali bi dina am njariñ wala du am njariñ waaye foofu sa kay fàttali ak ña ñuy fàttali ak fañ koy fàttalee lenn lu ci nekk da caa am wàll loolu nag taxumaa jóg tey waaye ñaareel moom ak dogu da caa am wa dakkir fàttalil rek fàttalil mu ne fa inna dikra ndax fàttali moom tanfaul muminina day jëriñ ku gëm yàlla kon bu nu fàttalee ba noppi te yëgoo benn dolleeku ca la nga yenn woon yëgal ni yow war ngaa xoolaat sa bopp ndax sunu borom moom wax na ba noppi te lam wax mooy li am mooy fàttali day jëriñ ku gëm mbokk yi xam ngeen ne li nu dajale mooy jàng alquran fi mu ne nii de tey am na ñoo xam ne ba nu xëyee dañoo ŋàbbu seeni saak liggéey ñu takk seeni karawaat dem ca la ñuy dem ñu ŋàbbu seeni bagage ñu yor seeni oto nekk ay sëfoor ñii nekk kenn ku ca nekk moom day wuti àddina dëgg la nag wut àddina gi am na nu mu koy defee nu mu koy waajalee ba mën na caa amaale ci yaaba kenn woo eddi wut loolu waaye yow bi nga xëyee yow wuti woo àddina yow allaaxira ngay wuti lu jagal sa àddina jagal sa allaaxira loolu ngay wuti mu nag war ngaa sàggan ba ñooñee nga xam ne ñoom ñoo wuti àddina yi kese ñu gën law demin nan lay gënee demin mooy da ngay nekk ci lu noble te yëgoo ko nekk ci lu am lu seer di ko foye yàlla wërsëgal lu ñëpp bëgg te xamoo ko moom la wala fii lépp di wax ni nit ku yaree di ko li mu yore moomu ko ndax li tax moomu ko mooy day caaxaan ba mu wadd ci ay loxoom ku yaru ni ko cas dem ak moom loolu mooy tawfiq bi la suñu borom defal danga koo war a gis gis gi mooy xam ni lii kat yombut te xam ngeen ni mbokk yi dajaloo di jàng alquran de lu rëy la bokk na ca lay wane lu rëy la mooy ak dajaloo la ci di jàng téere yàlla bii di alquran te loola moo gën ci li ñuy tuddee zikr xam ngeen suñu borom daf ñoo digal nañ koy tudd di ko fàttaliku te toog di jàng alquran borom xam-xam yi ñu ni moom moo gën ci zikr muy di tudd yàlla te xam ngeen ni zikr moo gën sax ñaan tàllal say loxo di ñaan yàlla zikr ko gën te zikr toog di jàng alquran la ca gën ndax kat barab ba ñuy toog di fa jàngee alquran ndax am nañ yëg-yëg ci ni barab la boo xam ni ci barab bi àjjana yi la bokk am na wax yooyu nag da ngay dëggal rek bul sax xalaat nu mu mën a demee dëggalal rek ndax sa yonent bi la bàyyi ko sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na ci xadis boo xam ne imaamu Tirmisi imam Ahmad ibn Hanbal solo nañ ko te xadis la bu wér mu ne ida marartum bi riyaadi aljannati fartau su ngeen rombee ci dëri àjjana yi na ngeen taxaw jariñu ca witt ca bu doon am meññant ñu ne ko waaw lan mooy dëri àjjana yi xam ne ay dër mooy tool yoo xam dañ fay mën a bay dafa génn ay fruits lu bari dafa jariñu waaw foofa fan la ban fay romb di witt mu ni xilaqu dikr mooy barab yañ daje di fa jàngal quran mbaa ñu fay jàng xam-xam mbaa ñu fay fàttalal ci seen wàllu diin ñaareel bi ci liy wane ne li nu nekk nun ndawewut mooy barab la boo xam ni malaaka ya dañ fay ñëw mu ndax yow bëgg nga malaaka yi ñëw fekk la ci melokaan wu wu doy waar wi nga nekkee seetal sa bopp nga xool bi nga xëyee ca suba ne ci xalqa bi ba tey li nga fi nekkee est ce que bëgg nga malaaka yi yóbbu la loolu fa suñu borom loolu laaj la boo xam ne amul tontu ku nekk yaay tontu sa bopp li ñu tuddee sakina muy dal suñu borom defal la dal nga am maîtrise xam ni ngay def ah féex ah yëg jàmm te dara xew doo xam sax affaire bi da ngay jékki-jékki rek yëg ni daa tàbbi sa xol bi maanaam mu jékki mel ni nit ku jékki-jékki rek kontaan te dara xewul xam nga loolu day dal nit léeg-léeg nga jékki-jékki xaw a sévère léeg-léeg nga xaw a naqari deret léeg-léeg nga jékki-jékki mer te kenn defu la dara waaye léeg-léeg nga jékki-jékki kontaan te xamul la tax a kontaan fekk na sakina wàcc ci sa xol yërmande sunu borom muur la te it day waral nag buñ demee ca pay malaaka yi buñ demee ca asamaan yi ca yu kawee dafa tudd diw diw ah diw de moom tey fañ ko fekk moom wax dëgg yàlla de moom de ma nga toog toog bu jekk moom kat ma nga def nangam ma nga di la tudd saw tur jàpp naa ne am na nooy mel kat martaba yu kawe yi yëpp doo ko am ndax xam ngeen dëgg dëgg yu seeree nii yóbbu ta jënd xadisab abi hurayra te imam muslim nittali ko mu ne majtamaa qawmun fi baytin min buyuti llahi taala yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuunahu fi baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الله أكبر mu ne amul menn mbooloo muy daje ci ab néeg ci néegi yàlla yi foofu nag borom xam-xam ñu ni dañ caa taamu jàkka ndax jàkka moo nekkoon jànkaay alquran waaye barab buñ ko taamu beneen boo xam ni fa la ñu war a mën a jàngee day jël àtte ba di jàng téere yàlla bi di ko jàngalante ci seen biir ludul rek bu amee sunu borom day wàcce fa ñoom li ñuy tuddee dal yërmande sunu borom muur leen malaaka yi timit yiir leen sunu borom di leen tudd fa moom ah sama jaam diw de dëgg dëgg man seen borom kontaan naa ci moom ndax moom kat ba mu yeewoo ca waxtu sàngam ba léegi mi ngi tiim sama téere bi te it benn ñàkk yar wanewu ko ma nga tiim téere ba di ko jàng amaana saa saa mu jàng ba mu yàgg sax xol ba fudd amaana saa saa mu jàng ba mu yàgg xelam dem ci sunu borom amaana mu jàng ba mu yàgg dootul amati sax sago ci li muy def ah kooka de sunu borom di ko bàkkoo ah sunu borom di ko bàkkoo te jàpp naa ni sunu borom tudd saw tur rek rek succès la ndax fii ci àddina am nañu kilifa yoo xam ne bu ñu defee discours ba mu yàgg ñu ni maa ngi gërëm diw affaire bi say mbokk yépp ciy kontaan yàlla bu ñu ko jàllale télé nag ba ñëpp dégg ko. maa ngi gërëm diw ci jàppale gi ma jàppale wala maa ngi gërëm diw loolu doomu aadama rek bu ko waxoon tey ci misaal rek wala diw sama xarit la am na koo xam ne fi ne président de la république bu waxoon public ni diw sama xarit la rek pour moom am na àjjana ci àddina loolu ci doomu aadama la bàyyi ko fa kay fa ka rabbul ibad sunu borom bu waxee loolu subhanahu wa taala ñetteel bi ci li lay wan ni ñun li nekk kat mbokk yi duy caaxaan mooy daje bu màgg la boo xam ne moo gën ci lu ñuy daje ci kaw suuf ci diggante ab jàngkat akub jàngalekat ñu daje ci taabal joo xam ni jëfandikoo woon fa lu dul téere suñu borom bi subhaanahu wa taala moo tax yéen ci yàlla mu ni xayrukum ki gën ci yéen man taallama alquran mooy ki toog jàng alquran wa allamahu ak ki toog di ko jàngale xayri ya yaa fi gën addina bi ñaata multi milliards yi doomu aadama ñoo fi nekk actuellement ak milliards yi milliards yi doomu aadama ya jot a faatu ak yi juddoogul boo leen boolee ñoom ñëpp ñu lay fa suñ koonamu borom ñun la yow bokk nga ci ñi gën ah mbokk yi jàpp naa loolu nun nun buñ ko déggee sax waruñoo dalum xel danoo war a tiit est-ce que nun ca lañ bokk ndax lii yombut yaa fi gën yaa fi gën xam nga loolu moom dee su la ko wax ci ay caaxaan de pour nga am ko da nga góorgóorlu bu baax beneen bi ci des mooy yow ci njabootu suñu borom gi nga bokk yent yàlla bi nee na ci xadis boo xam ne imam ahmad solo na ko ci musnad te te muy xadis bu wér mu ni inna lillahi min annaasi ahliin suñu borom kat am nañu bokk ci njabootam xam suñu borom amul doom kenn juru ko jurut kenn bokkul ak kenn leen waaye njaboot mooy ña nga xam ne suñu borom kat daf leen a féetale ca boppam loolu lay tekki foofu ñu ni waaw yonent bi njabootu suñu borom googu ma mat naa xam de ñooñu ñan la mu ni ahlul quran hum ahlullahi wa xaasatuhu ñooñu kat mooy waa alquran mooy ña nga xam ni foo leen fekk ña ngay jàng alquran ña nga xam ni ñoom daanaka alquran sax lañ leen xamee faf ñoom ku leen xam daanaka alquran nga leen xamee loolu rëy la waaw fa kay fa bu fekkee loolu daa fekk si yow nga nekk ku gëm yàlla fa kayfa bu fekkisee nga xam sunna teg ca fa kayfa bu fekkisee nga bokk ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon dajale nga ci ay ngëneel lu bare bari ñeenteel bi ci li lay wan ne li nekk kat du ay caaxaan dimbalante la ci mbaax ak ragal yàlla ndax ka toog di la sa alquran fexe ba dugal ci sa bopp liib laam gu ci nekkul woon kooku mu ngi lay dimbali yow mi nangoo toog mu di la ko sax yaa ngi koy dimbali ndax moom bu la gisul woon du am kum dimbali waaye yow boo ko gisul woon du am ku la dimbali te sunu borom mu ni wa taawanu ala al birri wa taqwa li ma leen di sant mooy ngeen di dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla wala taawanu ala al ism wala adwaan bu leen di dimbalante ci ñaawteef ak la nga xamante ni mooy ay jéggi dayoo bàkkaar te xam ngeen ni dimbalante ci mbaax jàpp naa ni mbaax mënta gën a rëy jàngal alquran ak di ko jàng juróomeel bi lay wan ni wax dëgg yàlla li nekk war nañ koo fonk duy caaxaan mooy barab la boo xam ni kët dañ fay dénkante dëgg ak muñ ndax kay jàngal alquran ji boo ko jàngut nu am nun def ak yow pour nga jàng ko di ca sonn pour nga xam ko loola di dund loola mu ngi tolloog wala asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawaasaw bil xaq alquran la wa tawaasaw bis sabri alquran la kon daa laaj muñ dañuy dénkante dëgg di dénkante muñ laay jooju magi salaf yi nee nañ suñ masaana daje lu daje bi gàtt gàtt gàtt même bu doon jigéen ak morom maa daje ca marché ba sax ndugg ba noppi kenn ku ne war a aw yoonam ah mbokk ba yaa ngi fàttali ko wala asr ah nañuy dénkante dëgg ak muñ de fàttalante ko doog a dem loolu nag amatul léegi daa mel daa xewi te xam ngeen ne dëgg gi mooy kàddu suñu borom waaye muñ gi mooy kiy jàng mettital yum ca daj na ko muñ te xam ne yonent bi alayhi salaam daj na métit yu ko gën a metti kay jàngale jàngale dafa metti faw nga muñ ndax baat bi kii mënu koo tudd war ngaa mën a fexe ba mu tudd ko war ngaa yaatu dënn muñal ko ah ah ba man baat yooyu nga xam mooy alxuraan bañ koo yàq kon kenn ku ci nekk da nga muñ juróom-benneel bii war ne war na noo fonk lañ nekk kat ndax duy caaxaan mooy moy la gu dëgër ci buum ak suñu borom gi ndax buum nga gën a dëggal alxuraan gën a rombul alxuraan te it nag teqalikoo gañ doon ci it amut suñu borom ni waatasimu moy leen bi xablillahi ci buum ak suñu borom gi jamian ñëpp wala tafarraqu bu leen teqalikoo ah kii xëy dem fële kii xëy dem fële kii xëy dem fële kii xëy dem fële kenn ku ci nekk dem fa ngay dem yow nga ñëw daw dem ci xalqa ba kenn ñëw dem ci xalqa ba ngeen daje fa jàpp naa ne fa ngeen daje moo gën ci lu ñuy daje suñu borom ni wadkuru ni'matallahi alaykum fàttaliku leen xéewal yi leen suñu borom defal id kuntum aadaan ba ngeen nekk ay noonu mbaa ngeen nekk ñu xamante wut léeg-léeg nga romb sa morom sax doo ko nuyu parce que xamoo ko léeg-léeg nga romb ko naa kii kan laa kii fu mu dëkk kii de musuma koo gis suñu borom ni ñu toog ab jamono rek fa allafa bayna qulubikum suñu borom boole leen ci benn kër boole leen ci benn xalqa ngeen toog di jàng bokk lépp ñemente di dugglante di waxante suñu borom ni fa asbaxtum bi ni'mati ixwaan ngeen mujj nekk ay mbokk jàpp naa loolu xéewal gu rëy la juróom-ñaareel bi mooy bu fekkee da ngaa xam wutukaayi tiyaab bu gën a gaaw jàng alquran wax ma ko bu ko defee nu daal cay daw kon lay wane liñ nekk war nañ koo fonk duy caaxaan wutukaayi tiyaab a gënu koo rëy yéen ci yàlla bi ne man qaraa xarfan min kitaabillahi taala falahu bihi xasanatun walxasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif laam miim xarf walakin aqulu alif xarf laam xarf miim xarf xadisu imam Tirmisi moo ko solo nee na ku jàng benn araf ci téere yàlla bi benn araf benn araf mooy lan xam ngeen maaliki yawmi diin maaliki rek du benn araf ma rek mooy benn araf alif gi ko xëcc muy ñaar muy maa li di ñett ki di ñeent kon maaliki rek ñeenti xaraf nga tudd mu ni benn araf bi rek am nga ci tiyaaba te tiyaaba bi suñu borom da koy ful ba mu nekk fukk mu ni waxuma alif laam miim ngay doog am benn tiyaaba yi déedéet muy dama ni alif nga am benn tiyaaba ñu ful la muy fukk nga am laam muy benn tiyaaba ñu ful muy fukk nga am miim benn tiyaaba ñu ful muy fukk kon am nga ñaata tiyaaba fanweeri tiyaaba fanweeri tiyaaba soo ne alif laam miim am nga fanweeri tiyaaba waaye sunu borom nag am na fulla ju doy ni ah laa yaqbalu duaan min qalbin gafilin lah boo ko tàlloon say loxo nga di ko ñaan te li ngay ñaan di ko ci sa xel mi soo paree mu këppaat la ko du ko nangu kon alquran ci ki koy jàng di ko jariñu mooy ki nga xam ne ma ngay seetantal ca la muy wax ak la muy jàng ñaareel bi mooy xanaa xamoo ni fi mu nekk nii yaag man yépp a yem dañoo bari ay bàkkaar bàkkaar yi bari na lool te sunu borom dalaa bégal ci téere bi ne inna alxasanaati yudhibna alsayiaati dalika dikra lidzakirin ah inna alxasanaat li ñuy tuddee aw yiw day yuzhibna sayyi'at day faxas ay bàkkaar ay ñaawteef loolu mooy lan mooy ki nga xam ne ci ñun yàlla da koo nattoo mu amoon ay bàkkaar moo xam fu mu ko mën a amee yàlla defal ko tawfiq mu ñëw daal dugg ci xalqa ba di jàng amaan na góorgóorlu ga muy góorgóorlu sabab lay doon suñu borom dana ko faral bàkkaar yam defoon te moom sax jotu ko koo jéggalu ndax yiw yi day fank ay bàkkaar kon ndekki góorgóorlu ci tiyaab bokk na ci ay avantage am mooy sunu borom daf lay faral say bàkkaar ci sababu góorgóorlu ci yiw gi juróom-ñetteel bi lay wan ni liñ ne kat wax dëgg yàlla war nañ koo fonk waruñ koo caaxaanee mooy barab la boo xam ni ku bëgg a yar bakkan di fa faral di toog day dimbali pour nga yar sa bakkan ndax sunu borom mu ni qad aflaha texe na man zakkaha ka nga xam daa yar bakkanam sellal ko ah wa qad xaaba perte na halku na man dassaaha ki nga xamante ni dafa sàgganee bakkanam te jàpp na ne toog ci xalqa ba di jàng kat ah yarukaayu bakkan la waaye defarukaay la te wér na ni mbokk yi alquran dafay defar xol borom bi subhanahu wa taala mu ni inna hada alqurana alquran jii ngeen di jàng kat yahdi dafay gindiwaate lillati ci mbir yi nga xam ne hiya aqwa moo gën a jub bi maana ku bëgg a defaru rek jàngal alquran ku bëgg a gindeeku jàngal alquran ku bëgg a defaru jàngal alquran ku bëgg a baax jàngal alquran ku bëgg a jubbantiku jàngal alquran kon yii ay yëf la yoo xam ni boo ko boolee ah wax dëgg yàlla da nga yëg ni kat kon ndekete war nañoo góorgóorlu ci lu nekk bu baax fukkeel ba mooy nun mën nañoo fexe ba bokk ca ña nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala musal na leen ca la alquran doon xase wa qaala rasulu ya rab inna qawmi ittaxadu hada alqurana mahjura yenent bi mu ne yow sunu borom kat sama xeet wi danoo jàpp alquran ji tong ko wan ko gannaaw dëgg yàlla fajar nga yeewu jàng huit heures bu midi nangam nga jàng trois heures ba ngoon nga di ko jàng jàpp naa ne yow moom sa yeneen nga war a lijjanti waaye war ngaa sant yàlla bu la yàlla dimbalee tuut ña ñuy wax naan ñoom moom tong nañ alquran gàddaay nañ ko yow moom doo ca bokk yow fukkeel baak benn ci war ne war nañu gën a fonkaat li nekk góorgóorlu ci mooy ñu xam ni kat xeet wi yàlla daf leen a taggee woon téye téere bi di ko mokkal gis nga ku yàq da ngay seet ndap su yàkkal gan goo fonk da ngay seet ndap lu baax lu jekk saa saa sax mu nekk ndap loo xam ne yaa ngi koy doog a daaj tey nga yàkkal ko te ndax fonk ko xoolal borom bi subhanahu wa taala bi mu yekk alquran ndax lim gën a fonk yekk ko ca mooy dënn yi bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilm ah alquran ji de ay aay yu leer la yoo xam ni sunu borom doy loo wu ca ndab yu raw dënn ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam maanaam ñu woole ba nga ñëw ñu ne kaay nga ne luñ may doy ñu ne yow dañ lay boole ci ndab yi sunu borom di yekk alquran ci loolu rëy na lool jàpp naa ni nit ki war na caa góorgóorlu bokk na ci yi nga xamante ni ci tënk pour romb jàll yi nga xam ni war naa tax nit ki xam ni kat alquran jii nuy jàng lu am solo la mooy li ma waxoon sànq ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale ak sunu borom njabootam gi ci kaw suuf mooy ñuy jàng alquran yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ca àllaaxira dañuy wax kii doon jàng alquran ni ko iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda axiri ayatin taqra'uha allahu akbar xadis boobu léegi imam Tirmisi moo ko solo waa ji doon jàng alquran ci àllaa ka dañu koy kaay nga ñëw mu ne la ñun la jàngal ah jàng ngir ñun la jàngal te yéen fu ma jëm ñu ne la xanaa foo fu sa njàng yem rek fa la sa étage yem jàpp na ni kooka mokkal lu bare bare bare doon ko jàng te di ko seetantal di affaire am nar naa baax ah jàngal pour lan mu ne ñu ne xanaa pour nga yéeg yéeg jëm fan ñu ne xanaa fa nga mën a yem maanaam àjjana daal boo fa duggee yow jàngkatu alxuraan bi foo yem rek yaa fa yem sa bopp foo yemale rek yaa maanaam foo dëkk rek yaa fa dëkkal sa bopp boo ko bëggoon mu gën a kawe dana gën a kawe yéen ci yàlla bi ne almahiru bil quran maa safrati l kirami l barara ci man alquran jekku ko lool di ko jàng njàng mu sell te baax te teey te di ko settantal kooka moom sunu borom bu àllaaxira da koy booleeg malaaka yu kawe yu sell ya ni ko duggal ci seen biir nga ànd ak ñoom jàpp naa ni loola martaba ji du ko gën a rëy waaw ki nga xamante ni moom mi ngi jéem waaye àll wa ji setagut ijji bi setagut moom ndeysaan mi ngi ci sonn léeg-léeg mu ñàkk ci lool léeg-léeg mu sëgg sëgg ba dox gi ndeysaan di metti ndax affaire bi ni mu sonnee ah yéen ci yàlla bi ne kooku yàlla nee na moom dama koy beral loxo ban loxo mooy dañ koy fay ñaari tiyaaba suñu borom da koy fay tiyaaba dañuy fay kuy jàng alxuraan ba nuppi ni ko kaay ma fay la sa coono falahu ajran ñaari tiyaaba lay am suñu borom da koy fayaale tiyaabay coono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne mi ngi ci sunan abi daawud ak ahmad ci mustadrak xaakim ah xaakim ci mustadrak ahmad ci musnad yonent bi nee na man taallama alqur'ana wa amila bihi ulbisa walidaahu yawma alqiyaama taajan daw'uhu axsanu min daw'i shamsi ku jàng alquran sonn ca te di ko jëfe déglul de ku jàng alquran sonn ca te di ko jëfe ah ya nga ci jàng di ko jëfe bu àllaaxira sunu borom da lay solal benn mbaxana or boo xam ni mbaxana mi mooy gën a leer jant bi lan ngeen xam lu gën a leer jant bi yi nga xam ne su génnee àddina bi yépp lay leeral ñu ni ah say way jur te jàpp naa ne ku sunu borom jël loola solal ko say way jur yow la nga am moo gën a rëy parce que sa way jur def lu woon dara de yaa def dara yow yow yaa def dara de sa way jur da laa yóbbu rek nga jàngi kon sa wayjur ci boppam buñ ko solee mbaxanam or yow mu xamal lan lay solal dana gën a rëy wayjur yi daal ni waaw ñun ñun defuñu lu tax ñu solal nu mbaxanamu leeree ni lan moo xew ñu ne xanaa seen sababu doom jigéen jëloon yóbbu ko alquran mu jàng ko allahu akbar man damay wax ni lii ndax nit ñi dañ kaa déggut wala bi ñu ko déggee dañ koo gëmut gis nga nit ñi bu ñu ko déggoon ñu gëm ko jàpp naa ni lu bare bare bare bare bare ci école français yi kon tey dina tëj nga xam naa ni ku dem ba yëg ni nekkate mbir mi yegg na fa waa ji ci boppam moom jël gi mu jël doomam jàngaloo ji ko alxuraan rek sabab lay doon ci ñu solal ko mbaxanam moo xam ni mbaxanam or la gën a leer jant bi subhanallah mbaxanam mu gën a leer jant buñ ko solalee ka yóbbu woon xale waaw fa kay fa kan yóbbu nag moom mu di ko jëfe nag moom moo tax ah imaamu Shaatibi da wax ju am solo mu ni fa yaa ayyuha alqaari bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli xaalin mubajjala hani'an mari'an walidaaka alayhima malaabisu anwaarin min attaaji walxula fama dannuka binnajli cinda jazaa'ihi ulaa'ika ahlullahi wassafwatu lmula wassafwatu lmalaa mu ne yow mi jàng alquran te di ci ngoy di ko màggal te jamono bu ci nekk yaa ngi yor jikkoy alquran ah yow de ñeenaa la nag ñeenaa la ñee say wayjur ndax say wayjur dañu di solal ay takkaayi or yoo xam ni leer ga mu leer ak colka ga yàlla rek ko xam mu ne waaw bu dee say wayjur lañ defal loolu mu ne kon yow mi doon jàng alquran di yow moom moom nun lay defal mu ne yow nag moom yow la yàlla soxla nag yaay tànneef ba nag maanaam buñ sélectionné mu ne yow la ñuy génne yooyu bu dajee ci gàttal jàpp naa ne war naa tax kon nu jéem a xamaat sunu bopp bokk na ci ni ñuy xamaatee sunu bopp mooy nu xam ni barab bii ñu daraja di fa jàngkat barab bu sell la barab bu ñu war a ormaal la bu ñu ko màggal bu ñuy màggal ndax dañ koy màggal parce que dañoo ragal ustaas yi déedéet dañ koy màggal ndax dañoo bañ ñu door ñu déedéet kon nga gën a ñàkkub cër parce que da ngay perte kon li ñu doon wax lépp doo ci am dara ka lay jàngal la ngay jàng fa ngay jàngee defe naa ñetti baat yooyu miin ngeen ko yàgg naa ko wax gis nga ñett yii mooy mën a maye barke mooy xañe barke ka lay jàngal fa ngay jàngee la ngay jàng ka lay jàngalee sëriñ ba la ngay jàngalee alxuraan ja fa ngay jàngee mooy xalqa ba am na ci ay ndénkaan yoo xam ne jàpp naa ne buñ ko seetloo léegi ñun ñii danañ ci jàng jariñu moo xam ñiy jàngale moo xam ñiy jàng ba ci njëkk nga xam ne jàngalekat bi ak jàngkat bi ñoo ko bokk mooy nga fexe ba booy dugg ci sa xalqa bi kat fexeel yëlbu yëlbu ba set maanaam fexeel sa xol bi lépp loo xam ne mooy xeetu kañaan ak soxor ak bon ak ñàkk a sellal ah yooyu nga dindi ko doog a dugg ci xalqa bi ndax loolu la suñu borom sant wa thiyaabaka fa tahhir wa rujuza fahjur laab ba la ngay sol baax waaye laab ba sa xolit lu tilim tilim du ca nekk ndax sol lu set te xol ba ñuul kukk amalul njariñ borom ñaareel ba mooy jublu qibla mooy penk alxuraan képp koy jàng mbaa nga di ko jàngale bu jafewut lool nga jublu penk comme kii julli ni muy def loolu moo gën ndax yent yàlla bi nee na xayrul majalis mastuqbila bihi alqibla ah ci xadis boo xam ne imam Tabaraani génn na ko ci mu'jamul awsat ah barab yii ñuy daje ya ñu jaamoo yàlla nag moo tax ñuy wax la ca gën mooy bañ jublu qibla ñetteel bi yi nga xam ne jàngalekat beeg kii jàng ñoo ko bokk mooy ku ca dugg si ci xalqa ba sa yéene war naa nekk yéene i'tikaaf rawatina bu dee jàkka la xam ngeen i'tikaaf ak jaamu yàlla la i'tikaaf mooy fas yéene dama dugg fii ci barab bi def fa nangam ngir jaamoo ko yàlla loolu mooy i'tikaaf rek ala wajhil umum ci gën a yaatal te jàpp naa ne toog da ngay toog si daara ja di jàng loola jaamoo ko yàlla la kon fas yéene defar yéene ba dañ lay bindal siyaaba yi kuy jàng ñeenteel bi nga soccu nga soccu ndeysaan yottu yàlla bi saa mu ni booy jàng alxuraan malaaka mi day ñëw ngay jàng muy ñëw ngay jàng muy ñëw ngay jàng muy ñëw bay ba jël gémmiñam teg ko ci sa gémmiñ yàlla na ñëw mu fekk nga soccu kon ku gëm yàlla buy jàng alxuraan dafay soccu ba gémmiñam set yéen ci amee socc matharatun lil fami dafay setal gémmiñ di dàq feebar yi mardatun lil rabbi dafay kontaanloo sunu borom. bokk na ci teggin yi nga xam ne jàngalekat beeg jàngkat bi ñoom ñaar ñëpp ko bokk mooy képp ku ciy tàmbali nga tàmbalee a'uudu billahi min ashaytaan arrajim dàq shaytaane ah bi yeewu jotee mu di la biddanti biddanti loo ah nga jóge ca jàpp mu di la tayal tayal loo ah nga war a jàpp sax mu di la tayal loo ba doo jàpp ah. nga jàpp ñëw ba ngay dugg ci xalqa bi waxoo bismillah waxoo dara seytaane topp la bu ko defee boo dikkee ci xalqa bi da ngay bëgg a jàng doo mën a jàng doo xam lu tey fekk seytaane moo la ngàdd waaye boo ne a'uudu billahi min ashaytaan arrajim mucc nga fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min ashaytaan arrajim sunu borom ni saa boo jàngee alquran musul ci seytaane te nga xam ni seytaane moom du am doole ci ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla di wàkkilu ci suñu borom juróom-benneel bi ci yi nga xamante ni jàngalekat bi ak jàngkat bi yëpp a ko bokk mooy neexal alquran ji yéen si yàlla bi nee na man lam yataganna bil qurani fa laysa minna alquran ku ko jéemu la neexal bokkoo ci ñun zayyinu aswaatakum inda tilawati alquran neexal leen seen baat bu ngeen di jàng alquran abu musa al ashari yonent bi da ko romb muy jàng ci guddi ga njàng mi neex lool ndax abu musa kéemtaanu suñu borom la woon ci jàng alquran yonent bi ni ko biig de romb naa la ngay jàng alquran mu ni ko romb nga dama déglu mu ni ko waaw mu ni ko su ma xamoon ni yaa ngi may déglu li may neexal neexal ma dolli ko loolu ngir gën koo bégal moom yonent bi la ci jublu saa salaam moytul nag ngir sal fekk la ca mbaa ñu naan yaa fi dàq jàngal mbaa da ngaa nuroo xusareeg mbaa yow sa njàng mi sa nangam yooyu seytaane fa lay jaar de gis nga yu baax baaxaan yii ñu lay wax ci la seytaane yi ñëw bu ko defee nit ñi di la jay ngay jayeexu ah ngay jàng ca kaw ngir nit ñi wax sa baat daa neex wala yu demee noonu déedéet baat bu neex nekkul ci liital comme niñ ko foogee yéen ci yàlla biñ ko laajee kan moo gën a neex baat ci alxuraan xam ngeen lu mu toon parce ngeen dégg lu mu toon dañ koo laaj kan moo gën a neex baat ah ñun bu doon ñu ne da ngay wax kay jàngee comme xusari kay jàngee comme lii waxul yooyu yëpp xam nga lu mu wax koo xam ne buy jàng da nga cay yëg ak ragal yàlla koo xam ne baat ba ci boppam du caagee na muy werangi koog yooyu mooy tax ñu naan neex na déedéet waaye ko xam ne am njàngam da nga ci yëg ragal yàlla xam ngeen ci jàngkat yi ku mel ni Cheikh Kalbani ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne seen i baat wax dëgg yàlla taxut ko mel noonu la xaw naa xuur tuuti waaye boo leen dégloo sa xel da dem ci xadis bi ndax njàng la moo xam ne da nga yëg ni kii li muy jàng àgg na ci xolam da nga ci yëg ak ragal yàlla kon yooyu jàngalekat beeg jàngkat bi ñoo ko bokk yi nga xam ni jàngalekat bi moo ko moom maanaam ñun ñii man mi wax ak ñi fi nekk ñoo ko moom mooy nit ki war naa yaatalal ki nga xam ni mooy ndongo bi yaatal gu tax mu mën a am ak dégg-dégg ca la muy jàng yaatal gu mel ni boo koy sax nga amuk dal te teey yaatal gu mel ni boo koy sax nga baamul ko ko yaatal gu mel ni nga bañ a yàkkamti ba baat bu mu juum nga jubbanti ko loolaay waral la daloon yonent bi dula dal abasa wa tawalla an jaawul ama yàkkamti bu gaaw jóge fi ngir nga jàll ca leneen déedéet kooku jàngalekat bu waru ko su ko waree rek ma ngay jël àpp ndongo ba beneen bi ci des mooy lépp loo xam ni mooy waral nit ki du def xelam ca la muy jàngale war na koo bàyyi te foofu suñ téléphone yi da ciy dugg nun man ak ñii di jàngale man nag lii may wax waxuma ko pour défendre sama bopp ndax su ma ko naroon tomb bii duma ko tudd dama koy tëb waaye dama koy wax ngir ni man ci sama jëmmi bopp lin may wooyee la ci ëpp lu jëm ci daara ji la kon la waroon mooy man sax duma dugg ci biir xalqa bi damay toog fële lijjanti ji loola kon bu ma duggee ci biir xalqa ba te waruma fa war a dugg buñ ma fa wooyee danaa wuyu jàngalekat nag ab jàngalekat bu fekkee dafa ne ci waxtu jàngale man seet na professeur français ni nga woo kenn mu bind la message ne damaa ne ci cours wala ko français lay jàngale wala nga woo kenn mu dalee may watu damaa ne ci cours daal di coupé loolu seet naa ci ñuy jàngale français jàpp naa ni kon jàngalekat bi war naa mën a def ca téléphone am loo xam ni ku ko jot am na message yoo xam ne day ne ci téléphone bi loo xam ne day day day bind nii damaa ne ci heure jàngale dinaa la woo wa illaa mu nekk lu koy wax ñaar yooyu yëpp am na wa illaa jàngalekat bi kat mu def portable am noo xam ni xëy na bees ko wooyee ndax muy man muy ñoom ñuy jàngale jàpp naa ne kuy jàngale ba mu yàgg nga ni nii allo rek dina am ñu siggi xool te loola ma ngay yàq yooyu kon ci sawaagil yi nga xam ne day waral àq bi nga xam ne xalqa bi sëriñ daara bi war na koo jox du ko ko jox beneen ba ca des mooy te bii moo jur doom ji moo jur doom ji may bëgg a wax mooy fexe amuk dal ba dara du la empêché ba nga may mën a seetlu aay yi ngay jàng ndax korox lu googa di am day bokk na ci lii war a yërmande suñu borom wàcce ko te jàpp na ne jàngalekat bi moo ko war a njëkkee jàngkat bi doog cay topp ndax mooy imaam bi bokk na ci yi nga xamante ni jàngalekat bee ko moom mooy mu fexe ba buy sax na jël temps te la muy saxaatee moo tax gis nga boo gaawee mer bu dee da ngaa gaaw a mer mënoo si korte am na ndongo yoo xamante ni duñ duñ baax le ndax di nga ko wax waxal so mënta wax so te yaa ngi war a sa yeneen xale baat booba war nga caa jël sa waxtu ba man ko ndax bis bu boo ko nee waxal so mu ni sap nga bàyyi ko mu dem bàkkaar ba yaa ko gàdd ndax bu xamoon nu ñuy waxee so du ñëw toog ci sa kanam kon yaa ko ci war a dimbali ba man ko mu doog a dem beneen bi ci des ci yi nga xamante ni jàngalekat bi war na koo sàmmonteel mooy mu am seetlu ci gone yi eh taxawal ca buntu bële kër mu jóge fee seetlu googu nag mooy mu sàmmonteeg muñ am na ndonga boo xam ni bu jàddee yoon yara koy jubbanti su boobaa nga yëkkati yar teg ca kawam am na ndo ndongo boo xam ne boo ko siggee xool ko rek moom dana xam li nga ko wax nga sëggaat am na kook boo ko wooyee ba ca néeg ba nga wax ko fa la nga koy wax boo ñëwaatee ci xalqa bi rek gis ni soppeeku na am na kook boo ko menacé tiital ko du delluwaat ca lam defoon am na ko faw nga ñamal ko benn yoon ngir boo léegi du ko defaat am na mbaam daara moo xam ne moom yat wi ci boppam moo war a nekk xaritam moom yat du jub ci digg gannaawam ndax moom moom moo def boppam mbaam nu def ko ni ñuy def mbaam loolu nag mooy kuy sàmm ay xar benn yat ngay yore waaye kuy sàmm ay nit yar yu bari nga war a yore ndax nit ñi bokkuñu loolu nag kon du ma jël ñëpp jox leen benn àtte am na ndongo boo xam ne mën naa jël xijit kii mën a jël rubo kii mën a jël sumun kii mën a jël page kenn ku ci nekk damay xool lam man ma di ko ko jox su ko defee di ko àtte ca lool waaye nag mu góorgóorlu ba bu ko seytaane man ba mu gis boppam ndax kat diw maa ko jàngal ba mokkal diw maa ko jàngal ba mokkal diw bu dul woon ak man diw xee bu la seytaane jaaree foofu rek bu la paddee boo moytul nga daanu ci suuf moo tax léeg-léeg ngay bàyyi xel seytaane bañ laa jaar ci buntu boobu moo tax borom xam-xam yi ku mel ni al-allaama ibnul jawzi te insha allah bu ñu suñu borom defalee kàttan bokkoon na ci suñuy yéene mooy jéem a topp téereem boobu ci benn waxtu ci waxtu yi xalqa bi ndax mi ngi ko tuddee talbisu iblis technique yi iblis di jaar bay yàqal nit ñi te yàpp nañ leen ñun ñëpp soxla nañ kon mu fexe ba diw maa ko jàngal ba mokkal diw budul woon ak man diw nangam déedéet kenn ci magi salafi da doon wax ni wajidtu anna alxalqa taallamu hada alilma ala an la yunsaba ilaya minhu xar benn borom xam-xam la boo xam ni fiq la doon jàngale mbooloo mu bari di ñëw di jàng si mu toog ba mu yàgg mu ni man de su ma sañoon nit ñëpp dañuy jàng ci man ba noppi te kenn du xam ni maa leen jàngal bëgguma sax ñu xam ni maa leen jàngal jàpp naa ni kooku de ñee naa ko man nii kon yii ay xeeti njàngale la yoo xam ne jàngalekat bee ko moom ya nga xam ni jàngkat bee ko moom muy ndongo bi mooy mu yaru te toog toog bu jub ci kanamu jàngalekat bi keroog ba jibril dikkee ah di wane ay geste yu tax saxaaba yi man caa jàngee dafa ñëw kawar gaa ngi ñuul kukk yëre yaa ngi weex tàll yaram waa ngi leer lool naññ mu ñëw ana yonent bi ñu ne ko mi ngi nii mu ñëw ba sukk ci kanamam xoolal jibril di malaaka yonent bi di yonent mu wàcc asamaan fii kawe ya ñëw ba sukk ci kanamam jël ay loxoom teg ko ci ay luppam daan ni ko damaa bëgg nga jàngal ma gis ngeen yar boobu borom xam-xam ñu ni day wane yar bi nit ki war a am ci kanamu ki koy jàngal moo tax saxaaba yi loolu lañu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu mel ni mel gis nga yaru boo ko amul ci kanamu ki lay jàngal da ngay jàng ba fuuti te du la jariñ dara dara dara te li gën a soof mooy relation jàngalekat bi ak ndongo bi mbëggeel amu ca gan bëgg laa ci namm mooy yéene la yiw yéene la nga gaaw réussir gis nga ndongo bi dana yor ci xeeti yar ak góorgóorlu nangoo mokkal ah fonk sëriñ bi sëriñ bi fa mu toogoon mu jóg nga toog fa loolu ci ñàkk yar la bokk muy wax ak yow nga di ko ree loolu ci ñàkk yar la bokk toog jàllal say tànk ca kanamam ci ñàkk yar la bokk ah muy wax ak yow ngay fuññaaral sa xar kanam mel ni ñoom alaxam ak alaxam ñoom xam nañ li may wax loolu ci ñàkk yar la bokk ngay wax ak moom di wax wax yu gàtt ci ñàkk yar la bokk ngay wax ak moom di mel ni kuy wax ak sa morom ci ñàkk yar la bokk même bu sëriñ bi juumee sax waroo ko feeñalal juumteem sa kanam imaam Malik daa jàngale ñu ne ko waaw baaraamu tànk ndax dinañ ci dugal ba baaraam bu xalil ko bu ñuy jàpp mu ni déedéet fekk benn ndongoo ngi ci daara ji boo xam ne ahankay mu bàyyi ba sëriñ bi génn mu ne ko ah sëriñ man daa mel am na lu ma ci gis de mu ne ko loo ci gis mu ne ko gis naa diw mu ne ma diw mu ne ma diw mu ne ma mu ne yent bi nee na nañ xalil suñ baaraami tànk mu ni ah lu tax waxoo ko ci biir moo la mu ne ko loolu teggit te suba sa Malick moo ñëw am oyof xool gis nga yar bee jur oyof gi Malick mu ne gis ngeen démb bi ma jàngalee pare damaa juum diw moo ma jubbanti yàlla na yàlla fay ko yéen te ndongo bi xam ngeen su bëggoon ku ko siiwal te kanam loolu la koy wax loolu ci ñàkk yar la bokk moo tax dañuy jàng ba fuuti dara doo ko am ci yar teggin yooyu maanaam yëgal ni sa yonent moo la ko sant ak sa borom doo ko defut da ngay jàng ba fuuti waaye dara kon la war mooy ndongo bi mu am yar bu xësee dugg ci xalqa bi xam ni dugg na feneen man maa ngi fàttaliku ñun biñ doon jàng am na yooyu yéen a ngi koy def ñun buñ ko defoon dama laaxira bu yàgg kon tey duñu fekk gis nga sëriñ bi mu musaana ànd tool ñu yéeg ci kaw sareet bi dañuy kafakaree di kaf mel ni ay morom ndax moom ko ubbeeku woon la waaye buñ ñee cëpp ci daara ji ñu génneel ko piliyaan ba mu teg ca xalqa ba da ngay yaakaar ni kii butti la lay bëgg a def da lay bëgg a butti man loolu bokk na ci li ma gënoon a yéem soppeeku bu gën a gaawee nii te buñ demee tool dañuy kaf ak a wax ak a nangam ba wàcc jot ñu àndaat ci sareet bi ñibbisi ah waaye buñ duggee ci xalqa bi da nga yaakaar ni kii daa bëgg a butti sa biir bi ndax da da du ubbi kanamam du kaf du après bi ñu màggee ci lañ doog a xam ndekete ah mbir mi kon lii la laaj ndekete rigueur bi lii la laaj mooy tax ndonga bi yaru